moom man mosuma laa pourcentage ci moom. mais daaw na la jox. déedéet. su sa lekk xaalis tàggat. ah bu ma commencé lekk daal. lu ma mënul waat. waaw lu ma waat. Ah. mooy ne sama oto panne ma koy àbb xaalis. 500000 ah. ma yoruma xaalis. waaw. boo ñëwee xam nga ma jox la ma ne ko man dama laa nekk dafa ëpp. mu ne ma non garaawul xam nga temps yi dama ñu ko du jox ma deux cent mille. Mhm. lii da laa mos a dajale ci moom ci xaalisam. mais mu bëre ba pare ne ma sa part. ne sa xam mhm. bu ñu commencé ba ni mu bàyyi. muy moom muy am seen nag. kese cent millions yi ñuy dégg Tyson mosoo si laal. waaye ñoom ñëpp a yem laalo man mosuma lekk xaalisu mbëru bul faale mosuma am pourcentage bu. maanaam yéene nga ma. di nga may woon sa biir ci wàllu alal. mais boo ma nëbboo ma réer la. xanaa li may dégg ci journaux yi signé nañ nangam ak nangam ak nangam ak nangam. parce que liy firndeel loolu moo lay woon ne la. tey bu doon ne yéene nañ la dañuy yëkkati di la jox même boo xamul sax lu ñu feeku moom di ëmma seen kenn mosuma cee wax looy feeku te mosuma cee laaj kenn dara. amul benn mbëru bul faale bu mos a bëre ba pare ma ñëw ne la jox ma sam pourcentage bu ko ci def ngir yàlla maa ngi lay laaj taxawal ne ma def naa bëgg naa la bëggeel boo xam ne xam naa bu dee ñëwoon yow yaa koy gis mais du ma ko gis parce que balaa ngay dee ma dee ma foofu laa tolloon ci moom waaw te xaalis taxul parce que lekkuma ko ci moom je dis bien hmm. ay milliards dama koy dégg nii rek cachet sax bu amee cachet Tyson hmm. mosuma xam lu muy fee ko ci cachet mosuma ko wax mosuma ko laaj est-ce que dégg ma hmm. mosul signé contrat ñëw ne ma mbër signé naa temps lii lañ ma fay du avant du après combat mosuma ko ko laaj ndax dégg ma la wax. merci beaucoup merci yàlla na ko merci te euh, ci parce que maa ngi fàttaliku. ci ko ah. euh, sama taaw. waaw. bi ñuy bëri ak daaw de doom. waaw. ah ñu ngi juddu vendredi ñu war a bëri dimanche. waaw. soxna si ñu ngi ëmb ba diis. Mm-hmm. ndeysaan crise yu banque ñu ko doon wax Vic Ablaye Diop. Ablaye waaw Vic. soxna si daf ñu doon toggal. Uh-huh. ba mujj gi mu ne ma kii ñu toggal parce que kii dafa sonn ne ko dootoo togg. mu uh-huh. ne ma togg rek. vendredi la am doom. Uh-huh. ñu bëri dimanche. ak daaw de toog. kañ laa gis sama taaw. mardi parce que maa ngi woon ak daay kon soxna si bokk na ci suñu réussite. bu ma neexoon. génn naa ci rajo yi. waaw wala yi. amul ku ma woowul pour wax depuis lors. waaw man aw parce que dama ne aw ci détail. Mhm. luy wax moom moo koy wax te nag du yàgg ba. ma génneel ko loo xam ne nit ñi dañ koy jéem. waaw bu ma ko xamoon ci moom du ma ko wax. parce que ki nga xes ne kii sama nit la. waaw même bu amee ji ko bu safaan. waaw xëy na am na loo boo ko waxee sax yow mujj mën nañ laa. Mhm. sikkal waaw. mais moom xam na man xam naa waxuma pour ñeneen man sa bopp laay mais na mu jeexalee dafa ñaaw moom laa moom ngay dem nga laaj bu desee ci man doo xam ci moom dara parce que maa ngi moom seqatuñ ko non loolu dafa ñaaw na mu ko jeexalee dafa ñaaw yow sa diggante ak Tyson dafa jeex. dama ne jeex jeexul tey jeex na ci ba ba mu amee problème ak Eumeu Sène te la mu jeex du ci man kese ci moom la jógee. Mm-hmm. man je défends pas les autres. Mm-hmm. dama lay wax ne la man ci rentre pas dans les détails. waaw li may wax nii moom ni may gis maa ngi koy gis ni may dégg. waaw j'ai essayé de recoller les mm-hmm. moom moo tànn mettre terme à relation depuis moo tax. amatuma du ma tudd tura parce que aw maa ngi moom relation maa ngi moom seqatuñu dara du téléphone du dara. c'est comme si on s'est jamais connu.